La mort de Sherwood à la suite de tirs par balle par la police est l'un des événements les plus emblématiques de ces manifestations parce que c'est une mort qui a été vue par la plupart des Sénégalais. J'inclus aussi sa famille parce que sa famille a visionné la vidéo le du 8 mars avant de se rendre compte que c'était leur frère Sherwood qui a été tué. Leur enfant. On continue à vivre, mais on souffre. Quand on sait que la personne qui a tué mon fils est toujours en liberté et continue à mener sa vie tranquillement. Beaucoup de personnes nous disent que le dossier n'aboutira pas. Parce que c'est un policier qui a tiré et parce que des personnes influentes peuvent nous faire tomber. Mais j'espère qu'avec notre dossier solide, on aura une justice équitable. Nuit et jour, on se battra jusqu'au bout et si rien ne se passe, ça prouvera l'injustice qui règne au Sénégal. Eh, Amnesty. Devant la tombe fraîchement creusée de son fils, Tanor Keita ne comprend toujours pas ce qui est arrivé. Depuis lundi, les questions se bousculent dans sa tête. Ce que je ressens, c'est très dur. C'est encore très nouveau, comme si ça s'était passé hier. Il y avait beaucoup de jeunes. Les policiers ont commencé à tirer du gaz lacrymogène. Après, les jeunes se sont dispersés. Puis j'ai entendu quelqu'un crier ⁇ On a tué un enfant !⁇ Je n'y croyais pas. J'ai garé ma moto pour aller vérifier. Tout le monde avait fui. Je suis allé voir le garçon. Je l'ai soulevé pour le retourner. et J'ai vu qu'il saignait à la poitrine et derrière, au niveau du dos à un projectile ayant complètement traversé. Ça veut dire que mon petit-fils a reçu une balle. Ils se sont précipités pour donner des fausses informations. On ne les a pas mis ici pour qu'ils nous donnent des fausses informations. La famille prévoit de porter plainte la semaine prochaine pour faire la lumière sur la mort de leur enfant. Contactés, ni le ministère de l'Intérieur ni le porte-parole du gouvernement n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Eh, amnistie. ne ma papa ma ne ko ah mu ne ma papa Amadou rey nañ ko ma ne ko yow looy wax nii mu ne ma papa Amadou rey nañ ko parce que dañ ko jam bal ci manifestation yi ma ko est-ce ma réellement dee na mu ne ma ma ne la bal bi dafa dugg ba génn dee na quoi boobu sax man xalaatuma woon ay communiqué ministère. mais ba ma ñëwee ci subaak légui ku ñëw né ma ministre bi communiquer bi mu def ñu né paaka wala ba am arme blanche moko ray voilà pourquoi sax man ma génne bal bi ma leen indi leen bal bi pour ñu wane ñu carrément bal moko ray parce que le ministre là xamu ci yan ki la sukkandiku pour wax lool comprendre donc ça fait mal une autorité boo xamante ne masawu la un deuxièmement mu teg loo xamante ne amul parce qu'il n'a pas la bonne information parce qu'il a voulu verser dans un autre sens loolu rek moo mën nekk dëgg la wala dëgg donc nak loolu ça fait très mal nit ki mën nañ situation en tant que c'est le ministre de l'intérieur intérieur lañ wax de Hein? Antoine Diome nañ wax deug te yalla tax mais li dara gënu ko metti ci aduna ba mu juddoo man ba légui musuma am metti bu toll nii honnêtement yalla rek a may mais damay delloo lépp yàlla nag parce que yalla rek mooy jël bakkan mais li ni mu méttee kenn mënu la ko expliquer mais waajur nga nag moom est ce que doxul.

Jeudi, leur fils, Radim, 21 ans, est sorti manifester. Le jeune mécanicien n'est jamais rentré chez lui, touché par balles réelles. J'ai le cœur meurtri. Quand tu retrouves ton fils dans une morgue et que tu le découvres avec une plaie par balle et du sang, ça fait trop mal. Je ne sais même pas comment exprimer cette douleur. Ça fait trop mal, vraiment mal. Maintenant, nous voulons que la justice fasse son travail. Gendarmes déployés sur le terrain. Euh, je voudrais d'abord, euh, pour vous répondre, saluer le professionnalisme et la sérénité de nos forces de défense et de sécurité. Il faut préciser que seule une enquête ouverte

ndax ku xëy sa doom liggéey woor ba ngoon war a ndog si doo ko balu feta dinaa la naqari sama doom yëmbal gii amul kenn ku benn pëlis bu ma la wax jàpp naa doom doom bi wala doom moon ji sama doom doo ko gis si mbedd ñuy taxawaal samay doom liggéey ñëw tëdd seen kër gi la ñuy def xam nga xale bu ndaw woor ba ngoon ab di ji ko fe doo ko balu fetal bu dee daa yóbbu léegi nag man sama doom ji baaluma kenn du àdduna du alaaxira du ma baale kon bu wax day leer baalewuma ba àdduna baalewuma alaaxira baalewuma te alaaxira na mooy fu dëgg fi ku yaakaar na fii daa wéy nax nga sa bopp. hey amnesty hey amnesty bi wax si amnesty dafa ne amnesty. et l'effacement de certaines condamnations qui figurent au casier judiciaire. Cet effacement est décidé par une loi spécialement votée à cet effet par le Parlement. Il s'agit d'une mesure générale et collective. Mais quand nous fut jugé, à quand nous fut condamné, des événements yi amé ba wala ñun dañu déggatul tubaab donc ñun tubaab yi la ñuy topp si loo xamante ne ñun comprendre ñu si dara sangoor ñëw jàpp mamadou dia blondé ak ñeneen ak ñeneen manifestation am mu rey ba léegi jugement amul condamnation amul dédommagement amul pardon amul Abdou Diouf ñëw gis nañu rey nañ fa juge rey nañ fa ay policier rey nañ fa ay nit jugement amul condamnation amul dédommagement amul pardon amul Ablaye Wade ñëw troisième mandat rey plus de 14 personnes ay étudiants dee ci ba léegi jugement amul condamnation amul pardon amul dédommagement amul Macky massacré emprisonné décapité rey bu mu ko vous arme je vous protégerai et ce qu'ils ont fait ana Gilbert Sambou ani François Mankabou ani ñeneen ñu ne amnestina sama bopp ak ñama ñu teg ko fan Sénégal est-ce que war na mën a continuer di dundee nii bu ko def li def nit ne sina ñu jëmale ans le peuple du Sénégal souffre on tue et on ne juge personne on ne dédommage personne on ne condamne personne. Nous interpellons le nouveau président Moui, son excellence Thomas Faye ces actes de barbarie ne peuvent plus durer et il faut que ça cesse et dès maintenant ceux qui sont ceux qui ont tué doivent être cherchés recherchés où qu'ils soient qui ils sont et qui ils soient nous appelons, nous ñu juger nous juger nous ñu condamner nous condamner selon leurs actes que le peuple lui demander ndax nous ko tabax tant que xol yi ak xel yi ndax dafa am parents ba mënul nax saa yi le peuple sénégalais du ko seetaan nit nag balaa xolum di féex ñu war a xool kan moo rey doomu jàmbur kan moo dagg tànk doomu jàmbur kan moo dagg loxo doomu jàmbur mënul nax saa yi foog ñu juge leen loolu la dëkk bi di laaj mënuñu tabax Sénégal tànk ñaaw téef yi fa amoon génnewuñu ko teg ko si kaw taabal bi sénégalais yi xam ki rey ak ki reyul est ce que yàlla wax na amnistie. jomaay moo gañe xam nga jomaay looy sant yàlla mooy ñi la tooñoon en tant que Bassirou Diomaye ñi la tooñoon en tant que Ousmane Sonko ndax yéene ni jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay comme jomaay yooyu Sonko Sonkooy jomaay ñi leen tooñoon en tant que ngeen baal leen te yàlla tax. ñi tooñ réew mi nag moomu réew mi bay baale baa leen ak réew mi ñu faj ko rasulillah yee ñu gënoon a baax moo dax koon a tooñ bu ne tooñ nañ ko ko mu baale waaye karab bi ñu tooñee nabi daa bañ ni du baale li nga moom ngay maye sama koppati bii bu ma ko simmi woon maye lu ngeen ci man yàlla waxul amnistie yàlla waxul fenn amnistie ndax moo sàkk nit ñi ne bépp nit bu rey nit c'est comme si tu as tué toute l'humanité benn nit boo ko reyee dafa mel ne tu as tué toute l'humanité ndax benn nit tey moo tax humanité bi am plus de sept milliards de personnes benn nit boobu la yàlla boole ku jigéen ñaar ñooñu ñoo tax tey humanité taxaw ñoo tey tey ñu taxaw fi tey mën a wax suñu lii a duñu ko seetaan am na nag ay nafiq yu di wax réconciliation réconciliation tant que justice amul balaa ñuy dem ci réconciliation dañu def justice ba pare xam ñi ak peuple bi di Diomaye nous ndax ñun baaluñu mënuñu baal Jomai Fay, tu étais en prison Sonko était en prison C'est loxo daggul rey ñu dom doom rey papa rey ñu seen vous n'avez pas le droit de pardonner c'est le peuple qui doit pardonner et le peuple demande jugement condamnation loolu le peuple lui dit demander xeex bi lu bëri de ñu bëri ñàkk nañu seen alal yaa yaa ngi jooy ba léegi papa yaa ngi jooy ba léegi ñun en tant que immigré TV en tant que immigré en tant que citoyen sénégalais ñu am si ñoo xamante ni dañu perte seen bakkan ñu ñàkk si seen tànk ñoo ngi demander que ñu chercher les criminels ñu juger leen condamner leen dëkk nag doo ko defar tant que ña fa nekk seen xol féexul kon nag gaañi ne peuple sénégalais bi ñëpp taxaw pour demander justice balaa ñuy jublu ci liggéey bi ñu rey ñi ngi fa toog jàpp seen ñàmbur ba léegi mënul nax saay mënul nax saay mënul nax saay maa ngi leen di ñaan wax ji fu ngeen munti nekk si àdduna ngeen partage ko ba Sénégal yëpp dégg ko وسلام